nuyu naa ñëpp fi laay tàmbalee yéen ci seen revue de presse el sa kaas nga guux bala ngay naan wax la li xew ci réew maskanu sunu gaal gi yëglekaay gi ne mbir mu yéeme te doy waar yëglekaay gi ne moom la waa cité apix yeewoo libération moom kay li yéem kay seetetetet ab xale bu am ci ab koofar moo ana faat xale ba ana moo ko dugal ca koofar wata ba jar naa la weetetetet ku moom wata ba fu wata ba jóge loolu yëpp ay question la question bi ñuy réprimander le couple à tout prix yëglekaay ni ma góor ñeeg jigéen ñi ma ne ndaw ñeeg mag ñi ñëpp a ngay raj raj loolu laa la wax di wut ay ingrédients ki mbir boo waxee ñu lay arsenal la ngir dëgëral sama couple yëglekaay gi ne produit aphrodisiaque yi lee xas la def ci marché bi laa la wax mi ngi mel ni am mburu mu nuy jaay rek moo fi ne sax kay ñëpp ci am accès du ñuy marié dong de célibataire yi dañ koy jënd ba mu neex docteur Niass ne risque bi ci gën a gaaw moo di arrêt cardiaque de dunduk doomu aadama de te kat kaay la jeeg ji mbir mi lu ne jaral na leen ko laa wax yii produit am nañu ko bëgg lool ci réew mi waaye am nañu ko bañ ba lànk kandaar de yëgle gi ni ma coow lu métti te fatataraj la ñu nemmeeku te prison gu mbuur ba l'observateur yëgle kaay ni ma bataille sangalante xeex bu métti lool ci diggante garde corps yi Ousmane Sonko yi ak ay gangster wóo tototët xeex bu métti te tar ba métti lool ci ñi nga xamante ni ñoo di ga corps ma garde corps bii di mu tàng jër tax ñu metti woon na lool te tar l'évidence yëgle kaay ne ma ka nga xamante ni moo di Ousmane Diakhma Fatou te prison Mbour ba waa famem day neeñu na mbir mi leer nañ ñi xam ana naka la Fatou na leer ni aw bëccëg regard yëgle kaay bët la lu ñuy gën a ñu bokk ñëpp ñëpp laa wax ñu participer ci élection yi lée ci suwaaru réew mu askan sunu gaal gi de ci la bokk ma ne ko nga ni mu ni ma waaw waaw dañ cee war di boole di baale la laa wax te moom Souleymane Ndéné Ndiaye a gisul ana lan moo waral ñu mën a amnistie Khalifa Sall ak Karim Wade bàyyi leen ñu bokk ci élection yi lée te bàyyi xam ni moo di Ousmane Sonko moom Pastef waaye waaye jaraafub tike coor bi mu bokk man la moom kay bu doon course fas la fi toll ngi pël laa kanam yëgle kaay gi nee gaa ñaa ngay wonewu de bëgg bokk ñëpp a ngi wonewu l'indépendant yëgle kaay ni ma xoolal ma jigéen ji lee di ay dëmboo jigéen ju man góor ñi mu àndal day noonu lañ koy dàkkantale la lion di bawal yëglekaay gi ñee moom ay dëmbooj day samp na ndëndëm grand plan yëglekaay ne moom moom kay ma nga ca course ba wópp lëw revue de presse du jour ko xam le café vala neex saf ak jar fuut for tàng jër moo yow ndekete jigéen ñee itam ñi xool seesum président Macky Sall bi lee surtout ay yëglekaay ni ma tata ay dakay ma ngay détaillé ab programme waa ànd suqali Sénégal ne moom la ñu teg ca kanam ne es info yëglekaay ni ma ginnaaw moom de am na beneen daanaan bu pël ma ne na boppam kooka Thierno Alassane Sall lay wuyoo bu réewum ngor nag moom ci Thiès ak li ko wër ma ne askanu sunu gaal gépp daje nañu ca Thiès de ci njiital saa Kajoor Massamba Diop ndaanaan mu taxaw ni da koy jàppal tànk de ngir rek ki nga xam ni moo di Thierno Alassane Sall toog ci bopp réew mi ñoom mu àndal de neen ci ngor la ànde yëgle kaay gi ne ay ci ñu ñu bisi yooyu kàddu ko ko yëkkati ok Idrissa Seck moom Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar lay wuyoo de borom réew mi yëgle kaay gi li grand plan ni de leen ñu xamal waay waay dëgg ko xamatul foo jëm da ngay dellu fa nga jóge woon Idrissa Seck nee ñibbisi le quotidien yëgle kaay ne ma moom kay jàpp na ne ngir mu gagné élection yi a wuutu président doomu gosaas ji dey ma nga ca suuf di liggéey enquête yëgle ma liggéey bi nu liggéeyoon ba Macron ak Macky Sall njiitu réew président de la république nekkoon benn day dafa mel ni fi toll nii bu doonub gaz la sotti nañ ca ndox nee na laa wax seen relation day demeetul na mu meloon tur bi yëgle kaay kàddu ga Bougane Gueye Dany ma a xew a am ci réewum Sénégal maintenant fi mu nii temm nag il ñu obliger Macky Sall njiitum réew mi mu organiser élection yi ci yoon rek nag jàmm ak salaam am na leer naññ ne aw bëccëg tey bëccëgu tey gi day résultat yi baccalauréat yu bari dinañu wàcc ci réewum askanu sunu gaal gilee jongante gi nga xamante ne moom la gone yi jongante ba noppi di xaar nag seeni résultat ci boobu pression ku ko dundul mënoo koo xam deux minutes pour lire l'essentiel yëgle kaayu benn Makhtar Diop gi ni ma li ma la mën a xamal day Macky ak Sonko moom duel bu amul fin la cooki rek moom koy juboo yombul ci ñoom enquête quotidien yëgle kaay ne ma ci joojale jamono di njiitum réew président Macky Sall moom mi ci action Sall ngaari kay fësine naa inauguré gaarub teerub AIBD wóppalew moom day ne ak li mën a xew action yi nga xamante moom la ñu tàmbali dinañ ko yeggale maa la ko mbi de teer bi jógee Ndakaaru Njaay jal jóob ba biir AIBD lu neex ba romb neex kay yëgle kaay gi di ña nga xam ne soxlaatu leen Sadio Mané ca la bokk seeni jeede signé na Boulaye Dia di wane boppam fa mu ne ñoo daw ca jaggi ruur ga Ama Baldé mel ni ko zappe Modou Lo mel ni ku ko faaleetul ma nga naan ko man de fi teenu nii tembe damay liggéey ngir sama combat giri moom de lay entraîneel pare naa ngir bëree lu ci am ma des daal le 5 août kii nu jëm ca Pikine day fësal nañ ko sargal moom Ama Baldé <laughs> naa la ko wax de ku def dégg say bu baax rek ba sama ñu dem ba suba ak jàmm ak salaam a jaagenteef kafe gi ñu xelli ko ca Gosaas xelli ko ca pirum ndëri xelli ko fépp foo xamante ni rek gaañaa ngi fa di teewlu Fall Damel doomi pirum ndëri jeeg Gosaas ji maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax leen kontaane aca yéen ñi ñuy teewlu ñëpp nag kontaane nañ leen jox leen seen wàccuwaay jox leen dig daje euh, ba suba jàmm ak salaam mbokk yi euh, kawteef bii ñu tàmbale ko ay ca mi ngi noonu waxtaan ci nag tuuti euh, soog a rek def li nga xamante ni moom moo di jàll ah maa la ko mbii mi waaw waaw waaw waaw yaa ngi naa ma waxal ci garde corps yaay xeex ca prison bu waxuma foofu waaw foofu de lool de lu yéema la lu doy waar mitti na lool waaye nag waa xale bu am 10 ans nu fekk ko nag ci ab wata coffre wata lu mu fay def nag waaye yéen nag mii réew moom mu faatu foofu waaw léegi nag nag ah waaye yéen du ngeen wax ci lii xoolal gi waaye man taluma li nga may kobase li nga bëgg ma wax ci taluma ko cuuraay yeeg engrais yeeg arsenal yi xale yi jigéen yi di utiliser pour gën a neexal seen sëy yi ah, ah ñoom la rek ah góor ñi ko bëgg nan leen ko defal góor ñu ko bëggul nan maanu gis nga Sénégal <laughs> ñàkk maandu rek ko yàq ah baax naag baaxul am na góor ñu bëgg nanu def ñu bëggul nanu nanu nanu croiser balaa waaw bu kenn yàqal kenn <laughs> <laughs> doy na waar daal moom daal doy na waar mais nag sama xol neexul vraiment bàjjan xuja maa ngi lay char sama xol neexul ndax euh, li ma gis ci yëglekaay bi xale bi nga xamante ni fukki at la am euh, ñu fekk mu faatu ci coffre bi loolu daal métti na lool waaye tey nag gars yi nan naan café gi rek te dem ba suba ak man kay moo tax may bëgg ngeen di commenter ndax may mën a tudd seen tur yi yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci yéen man su ma sañoon fekk la fa nga ne tudd saw tur ah daal nag waaw moo du dooley jën nii néew ma ko dëkke wax naa ma dooley jën ne ndox la dameel dooley jën ndox la mais di leen seetaan question réponse bi may def na gaañ yi di leen ko seetaan waaye bu leen yem ci revue de presse bi dee leen ma topp rek xoolal question réponse bi day saf dee leen ko seetaan ayca ma nuyu bu baax a baax ni commenté ñëpp numéro whatsapp bu dammeel ku koy laajte 78 la 453 48 86 nga ni ko Aliou mun le wii ayca mi ngi noonu Laat Diop ah, ngi lay bëggee bu baax a baax ab Laat Diop maa ngi koy bëgg di ko jox wàcc waayam bu baax a baax sama ñaari euh, kii euh, bàcc ci waaw euh, sama ñaari bàcc yi am naa beneen bàcc njaay menuisier nag waaw am naa beneen bàcc njaay ci Thiès menuisier Jakarta bàcc ma Samba moom fële moom États-Unis amérique ak moom moom moom moom italiano sama bàcc yi waaw bu Touba <laughs> eh, kooku kenn la ci man ah, Moustapha borom Mauritanie maa ngi lay bigee kontaan naa ci yow de mbaa xam nga loolu Cheikh Omar Diop itam maa ngi koy nuyu Daouda Diop naa ko bu baax a baax waaw ma dem faaw ma dem Maroc nuyu ah, Aïda Faye Khady Faye di moos borom Marrakech maa ngi koy Ali Ndiaye sama xarit la maa ngi kaa nuyu di ko jox wàcc waayam bu baax a baax a baax di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi may teewlu ji bi baax mi ngi nii yegg si na Baye Modou Yadd maa ngi koy nuyu bu baax a baax daam kunta sama xarit la ma ah, Mamadou Diouf également Astou Dramé sama yaay la maa ngi koy nuyu ñoom Kodou ñëpp Papa Diop Mali Bamako Keba jaa Binta Saare maa ngi lay nuyu Ousmane Darame sama xarit maa ngi koy nuyu Abdoulahat Sall ah Abdoulahat yaa ngi ñëw de Poulo kenn la ci man waaw waaw ah, Ndiaye Dos maa ngi koy nuyu bu baax a baax kontaan naa ci yow de ab Gueye maa ngi lay nuyu bu baax a baax Omar Diallo Mor Seck itam maa koy nuyu Rasoul Saax itam maa ngi koy nuyu Babacar Dieye duma ko fàtte Lamine Ndiaye sama xarit la Cheikh Wade également Ibrahima Sow ah, Astou Kane maam itam maa ngi koy nuyu Astou Kane waaw euh, gis nga moom nuyu ñëpp rek gis nga nuyu ñëpp rek waaw nuyu ñëpp rek moom kay moom nuyu ñëpp rek. waaw man bu dee ci man moom la la la waaja waxoon ci jumaa ji rek ñun ñëpp a maase <laughs> waaw bu subaa naa leen ko léebal dégg ngeen ayca kon gaa yi ñu jox leen dig daje nag ba subaa jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci askan sunu gaal du ñaan xale yi def ba bac nag képp ku mu jig rek yàlla jox la ko képp ko am ku ko am itam nga daal di kaa muurloo waaye képp ku ko amul item nga xam ni daa jotagul ndax ni ma koy faral di waxee rek mooy wërsëg wu war a ñëw 2024 nga ne ilaa bu daa laa ci jot da sa bopp sonal say mbokk euh, ñàkk gëm yàlla la donc kon lu ñëw rek xam leen ni àppam moo jot ca mbokk yi ba subaak jàmm ak salaam jërë ngeen jëf